na demeek li nga xamante ne ni bii mooy mooy boppam ah, euh, yëkkatiwaat tamit kàddu ni ki tey ci suba gi ne am nañu mbetteel lool oh, a ah, Sonko wax na dëgg mhm. bu nekkee ni da génn ak jigéen kay <laughs> boo investir si moom def li nga war a def yëpp heure takk jot keneen takk ko nga defaat si keneen investir heure takk jot keneen takk ko bu yàggee nag doo xool sa bopp si kenn ngay def <laughs> peut-être peut-être exemple bi dina la desere rey lu tax ma wax lool <laughs> ji nga euh, dañ ko yàgg trahir. Mm-hmm. ma ne bu nekkoon ni Sonko wàllum politique li muy jëfalanteeg nit la. waaw dañ ko jàppewoon mbëggeel. Mm-hmm. jàppal ne saa su ne ko jigéen ki war na ko dem. Mm-hmm, léegi dafa am rupture bu nekk di am. Euh, te am na ñoo xam ne dafa am fu ñu yegg si si politique waroon nañ dee bu yàgg. pour ñu bañ a dee. dafa am bi ñu jëmee ci 2024 ak fii ak cinquante ans ya ñu jëm. Mhm. beneen politique bu bees moo nar am. te ñu bëri dañu bëgg jëfandikoo ci tànk Sonko yi imagine toi ñu ne la tabb na ay maire mhm. maire ya war ko. tab na ay député député ya war ko. en fait Sonko li mu war a jàngee ci politique mooy tax na ay nit ñu doon dara. waaye tey ka fi nekkoon bi mu bëggee def musiba si ñoom ñoo ñëla ko njëkk a jaarale mm-hmm. te nag il est ki nga xam ne fi ñu toll nii moom bu weesoo woon ak APR Sénégal ba mu daj foo mënti dem am na fa base mm-hmm. xam nga boo amee loolu nga am ay GPS am magu Pastef mm-hmm. am jigéenu Pastef am ay cellule fépp fépp fépp mais kooku nag bu nekk ni politique saa su ne yaa ngi cee dem nga cee ñàkk la tax da ngay teral ay nit après ñoo ñu war la. Mm. est-ce que jotul aussi yawet boo amee foo ca toll nga wane sa bopp. Eh, bu ma déggee maître saa Diop ne dañ leen war dañ leen na xam nga lan la. Mm. Ousmane wala buñ ko jàppee. investir na mhm. si soxna sa soxna sa war ko mu investir mu investiraat si soxna sa soxna sa war ko mhm. léegi nag mu toog ba keneen ñëwal boppam balaa kooku di ko war moom mu war kooku <laughs> war amu si waaye nag est-ce waaye nag war amu si war amu si de mhm. waaye soxna si jaratul dara xam na ni bu ko xam na ne bu jàppul si waa ji moom dootul amati jëkkër maanaam maanaam maanaam liñ naan liñ naan liñ naan ah, last bul bi la. bu nekkee ba bi ñu ne last bul bi la. teg fa jeexal teg fa jeexal <laughs> dañoo bëggoon teg si Sonko jeexal. <laughs> waaye léegi si politique nga mën a nangu aussi li Ousmane Sonko wax <laughs> bu ñu xoolee si élection yu ñu mujj bu nekkee ne certes am na ñu ñëw renforcer dëgg-dëgg. Mhm. ñenn ñi ñàkk pexe moo tax ñu def ko beneen bi mooy. am na si ñoo xam ne amuñu loo xam ne moom la ñu li nga xam ne moo di Pastef mhm. maintenant nag ñaari si waaw a am yéen bu ñu xoolee seeni militant la mhm. yow la ak sa ñaari soxna sa garde ki lay dawalal sax ak gar ak kii di garde sa kër bu ñu xoolee dëgg-dëgg ànd ñoo ak yow mhm. xaalis moo la booleeg ñoom léegi ñooñu dafa am fu ñu dem fi ñu dem mooy il temps ñu récupérer lépp passants politiques bi mais aussi dañ ñoo jaay si ne assemblée nationale des députés yu ñu war a am dañoo doon des députés yoo xam ne ñoo ñooñee dañuy représenter seen askan. te Ousmane Sonko moo am dëgg. jënga mhm. bu xoolee waat ba jël fi koo xam ne warul ànd ak moom. Mhm. la mag ja waxoon mooy am ku yar sa kuy ba mu mag balaa muy mbëkk kenn yow la njëkk a mbëkk. Mhm. ñu bëri bu ñu ànd ak Ousmane Sonko xam lu ñuy soxla. mooy am benn notoriété bi ci politique. am benn koppar waaye jàppal ne ñooñee ñooy njëkk a feeraat face ak Ousmane Sonko ci avenir. fi mhm. c'est fini Ousmane waratul may kenn tànk. Mhm. wala waratul fekk benn mbër bu nekk ci maanaam ci saaku yi mu yëkkati ko andiwaat ko. Mhm. ndaxte suba la ko taxaw def. et pourquoi nga gis ay nit ne ay ñenn taxaw ne ñoo ngi xaar Sonko. xaaruñu Sonko. ñoo ngi koy xaar ba élection ñëw xaaruñu Sonko. xam mm. lu ñuy xaar. Mm-hmm. mooy waa ji àndaat ak ñoom pour ñu dundaat ci politique et ça fait l'occasion. waaw waaw ci élection législative yi ni ma koy waxee ne. ñu mm-hmm. xam député yi kan ak kan. Mm-hmm. et ça fait ku wóolu ku am doole ku yaakaar na ñii yaa leen tabb yow demalal sa bopp. mais politiquement Ousmane sunk aussi dafa am ndaw ñu mu àndal. ndaw ñooñee ñoo yàgg nekk ak moom xeex ak moom dayoo bu mu am ñooñu la. mais yow ndax di nga ñëw. may sa doole sa noon ngir ëllëg yow la njëkk a jëfandikoo yow la njëkk a jëm rawatina ndaw bi nga xam ne. mosul mhm. am si dërëm. ndaw si nga ndaw ah, ndaw si nga xam ne dugg na kaso ñàkk na tànkam. Mhm. ndaw si nga xam ne ñëpp dañ nekkoon bàyyil kii mu ne yow la gëm kooku ndax di nga ñëw ba pouvoir nga war koo tànn bàyyi ko fi dem tànn ji benn maître Moussa Diop. Mhm. bu nekkee fidélité yaa xayti militant wu passif moo ko ëpp ki nga xam ne moo di maître Moussa Diop et maître Moussa Diop. muy moom muy keneen dañoo bëgg a dund politiquement. Mm-hmm. maître Moussa Diop bu nekkoon keneen tabb nañ ko ci parti bi. Mm-hmm. Ah, tabb nañ ko bi Diomaye Faye waaye maître Moussa Diop boo ànd moom la ngay yàqule moo ëpp la ngay defar. Mm-hmm. rappelez-vous que maître Moussa Diop ci magistère am la waa APR am siège boobee nga xam ne moom ak Barthélemy Dias jote nañ ci ba Ousmane Sonko moo leen boole. Mhm. Dakar dem dikk dégg ngeen gestion am ni nga xam ne noonu la fa demee woon. am na ay rapports yu fi jug ne moom moomee laaloon nañ ko fa mu jug démentir ko. Mhm. et maître Moussa Diop li muy wax lépp li muy taxu di yuuxu lenn la. Mhm. xam na ne moom it politiquement c'est fini amul lu muy représenté. mënatul gagner. et coalition boobu moo représenté wul dara sincèrement. buñ koy wax léegi ñaara mën bu nekkee ne da nga gëm projet bi ñëwal nga ànd si buñ la joxee nga toog buñ la joxul nga dem. waaye Ousmane fekk benn nit fee ñëw jox ko. Mhm. ngir ëllëg mu doon paak bi lay njëkk a jam et sincèrement yaakaar naa ne politiquement. Mhm. ñun ñooy toog di ko wax waaye Ousmane xalaatatu ko. démb nag jot na mu waree sincérité mhm. ne leen ànd nañ maa ngi leen di jaajëfal fii la mën a yem ak léegi leen a si des. ku nekkee gën nga projet bi da ngay ñëw ñu ànd ñu dem boo ko gëmulee nag nga toog lii moo xew. Mm-hmm. yuuxu yuuxu bi yëpp maître Moussa Diop moom ak keneen a keneen ñoo ca yem politiquement c'est fini. Mm-hmm. amatuñu dara lu ñuy représenter et aussi nekkul nit ñi nga xam ne sa waay da leen di jox doole de. waay ndax ay politiciens lañ de. Mm-hmm. Macky Sall lañ nekkaloon de ëllëg ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy njëkk opposé ak yow. Mm-hmm. te balaa nga koy xam mooy ñu bëri ñi ànd ak Ousmane Sonko wala ñi bëgg ànd ak moom. Mm-hmm. doole lañ soxla de. ndaxte du ñu bëgg a dundaat ngir ëllëg bu ñu demaatee ci élection ñoom ñoo ñëwee ngir opposé ak moom. Ousmane nag maîtriser ne lool xam na ne loolu dootul leen ko may. lii moo xew. Mhm. nii la kaa bi demee. waaye euh, parti socialiste bi nga xamante ne ñoom it dañoo jóg taxaw euh, tembe ne dañuy ànd euh, coaliser wu ak kii di Amadou Ba naka nga jàngatee boobu coalition Daouda. bu ñu ñoom it dañuy coaliser wu de. kan. Ah, xanaa parti socialiste. da koy waxal. jëm ci Amadou Ba. waxal parti socialiste. waxal Khalifa Ababacar Sall waxal ci Amadou Ba. Mhm. Euh, bu ñu waxee ci parti socialiste. Mm-hmm. bu ñu waxee ci parti socialiste. xam nga ne politiquement. Mm-hmm. Macky Sall da leen rey. Mm-hmm. politiquement. waaw Macky Sall da leen rey socialiste. xam nga coalition bi ñu àndoon ci benn bokk yaakaar maki dafa am lu mu réussiroon te xaw ma ndax nit yi bàyyi nañ ci xel. Macky da leen jox ay ndomba tànk. ñu am yu ñu jiite. mais Macky dafa am lu mu si réussir li mu si réussir dëgg-dëgg. mooy parti socialiste wala ah, fi ñu amoon doole. muy moom muy AFP muy feneen ak feneen. muy AFP ak feneen ak feneen fépp foo xam ne fépp foo xam ne am nañ fa doole. Mhm. Macky bi ñu dem see élection locale. Mhm. dafa def lu tout. ba jëlee ku mel ni Louga ñu ne Aminata Mbengue Ndiaye moo fa am doole. waaw da koo nax def ba telle sorte que jëlee ko fa. Mhm. teg fa benn waa APR. ca Kaolack yeneen Macky loolu la utiliser. Mhm. boo xoolee dëgg-dëgg ci politique dañoo dee amatuñu dara lu ñu représenté. mais depuis quand parti socialiste bu ñu àndeek ak Amadou Ba dañoo war a ànd ak moom xam nga lu tax. Mhm. bi Macky sàll bëggulee. ñu tànn Amadou Ba. waa Benno Bokk Yaakaar kan moo jiite woon dëgg-dëgg Moustapha Niass moo nekkoon ko moo nekkoon sees ba foofu. te loolu part muy AFP ak ñooñu ñoo àndoon ak moom Amadou Ba bu ànd ak parti socialiste bettuñu. Mhm. waaye amatuñu lu ñu représenté. ndaxte ñoom ñoo yem ci politique amatuñu benn dayoo boo xam ne yegg na fenn fii. Mhm. léegi nag xam nga wax ji nag mooy xalifa Ababacar Sall bi ñëwaat ne daa ànd ak parti socialiste loolu mooy wax ji. Mhm. xalifa ku ko xam xam ne ab socialiste la xalifa xam nga ne moom ak Tanor la woon. Mhm. man kay Amadou Ba ànd naa parti socialiste. dama naan zéro plus zéro égale zéro. <laughs> léegi kay xalifa Ababacar sàll mi mhm. nangoo ànd ak waa parti socialiste loolu lay problème. yow mënoo leen taxaw xalifa ne li fi Léopold ba woon li fi Abdou Diouf ba woon. mooy kat parti socialiste parti la boo xam ne dafa am benn dayo bi. mais si nguuru Macky Sall lañ gis ne parti socialiste dematul ak boppam Barthélémy Dias loolu la doon xeex Khalifa Ababacar Sall loolu la doon xeex ñu sosal leen dàq leen dàqeen gu ñaaw parti socialiste ñu tëj leen yàlla na ko yàlla yaram xaare ko aljana mais boo xoolee dëgg dañ si doon nambu. Mhm. ñu am dayoo taxawu Sénégal boobee. mais yow ñi nga xam ne tey ñoom nga dëkkaloon yow nga bëgg li fi Abdou Diouf bàyyi woon ngeen wéyal ko. Mhm. Tanor yaa na ko yaaru yërëm moom ak Aminata Mbengue Ndiaye ñu ne leen déedéet loolee dañ koy tas. Mhm. léegi Khalifa Ababacar Sall dem nangu jéeg ànd ak waa parti socialiste. léegi nag question bi foofu lañ ko war a poser pourquoi. xalifa mhm. Ababacar Sall liñ ko def yëpp ci biir parti socialiste. c'est élection locale. législative au présidentielle ñu mënoon ànd bu yàgg defuñu ko. tey laa koy wax ne nit yi déglu bu baax. donc donc sunu sunu wax ba mu ngi bëgg a. mu ngi bëgg a ñëw. jinga euh, au ca wax ja. waaw fa laa jëm. Mm-hmm. Khalifa Ababacar Sall mësul bëgg kii di Ousmane Sonko xam nga lu ko waral. Mm. mara naan bu la taxee naan potit bu robinet tijjee da rus. Mm-hmm. moment bi mu ànd ak Ousmane Sonko yëpp mësu ko wan loo xam ne lu dégg lu sincère. Mm-hmm. tey xalifa Ababacar sàll bu àndee partie parti àndul ak moom pour gagner. est-ce que am na choix tamit ndax ñëpp jàppoon nañ ne euh, kii di xalifa fee lay dem rallier wu ji ak euh, waa Benno jinga loolu lañ doon njort ndax nee nañ taxawu daanaka mu ngi ci phase sukuraat. nga ne ndax am na lan choix. waaw am na choix ndax fa yàggul dara ñu ngi koy ñu ngi koy déclarer. ne dañu nekk fële ca ca sukuraat. Kumba Gawlo lu mu waxoon. sëy du choix sëy chance la. choix bu lan. choix bu amul kaw ma la choix bu mais choix bi àndul ak sens. <laughs> xam nga lu tax. choix bi mu def xam na ne du si. choix bi benn lenn moo ci sens xam nga mooy lan. <laughs> gën a diaboliser Ousmane Sonko mais haine bi mu am envers Ousmane Sonko. Mhm. yow nga nekk parti socialiste nga jóge fa. am mhm. benn dayoo taxaw Sénégal. waaw. mais nga gën a avancé nga nangu politique Macky Sall lor la. nga dem àndaat dem dem dem def ji dialogue. tey ñuy waxaat nga ànd ak ki nga xam ne moo di waa mhm. léegi nag wax ji dëgg-dëgg. lii lañu war a wax mooy Khalifa Ababacar Sall Aminata Mbengue Ndiaye. Mhm. bu ñu gooree woon dëgg-dëgg ndax dina nekk di politique ba tey si politique am nañ lépp. mais lan lañ ñu àndi askan wi. si yoon lenn la ñu waroon def mooy yor seeni course ak seeni sijaada mhm. di jaamu yàlla li système bi Ousmane Sonko doon wax moo nekk di continuer ba tey mhm. politiquement xam nañu duñu ñu représenter dara mhm. ndaxte boo ma waxee soit dama naan la soit bu àndul ak sens la <laughs> ndax du ñu <laughs> ndax Khalifa Ababacar Sall ci carrière politique am gënu woon yenu maanaam nga dem ba am foo toll Macky Sall jaay la doole imposé la. Mhm. dem ba bëgg nga nangu ànd ak moom si loo xam ne sincèrement waroo see ànd. Mhm. nga dem ca élection présidentielle nga ñaaw ca nga ne da ngay gën a ñaawaat si xew bi ndax gënul woon yenn maanaam ca élection présidentielle Khalifa ñëw ànd ak Ousmane Sonko. Mhm. et pourtant position mii mi moom la moo ci gënoon jekk. mottali nga yéene yéene googee jàllul au contraire mottali yéene gi mu doon wax doon candidat du loolu. mottali yéene mooy tey mottali yéene système bi mais mottali yéene mooy nan la ñu def bay xeex ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko. Mhm. et fii laa leen koy waxee tey boo leen gisee jëfin gi Khalifa Ababacar Sall di jëf mooy nonchalant la nag mooy sincère ci politique jéemul xool carrière politique. Mhm. Khalifa Ababacar Sall kon yéenewul askan wi jàmm lan lay opposé wu Khalifa Ababacar sa santé sax mayetu ko. Mhm. boo demee assemblée nationale loo fay toog loo fay def. yow amoo dossier bu lay jàpp. Mhm. li ñuy def nii waa waa benn waa APR ñoo ko waroon def ma comprendre ne ñoom dafa am lu ñu cay bëgg lan la si xalifa di gañ àdduna du neex ba askan bi voté la mënatoo nekk maire Ndakaaru pour nga doon député dinañu jaaxal lool. Mhm. et pourquoi nga nangu tey di àndaat ak ñooñu c'est juste que. muy mhm. bëggu Ousmane Sonko fi ñu yegg si tey mosoo koo bëgg. léegi nag. système bi ñu doon dundee continuer loolu la ñu bëgg continuer mm. et loolu nag la maire ba doon wax ça ne ndax askan wi am nañ benn maturité bi mm-hmm. te beneen bi nañu xam ne coalition boobu ko ànd ak ñoom xanaa maire avec yi la ñuy jël ñoo leen di voter baal maire yi <laughs> ah, ah. politiquement amatuñu lu ñuy représenter nañu dem nag mm-hmm. sincèrement daf siy gën a ñaaw. c'est c'est vraiment dommage. daf siy ñaaw moo ngi ñaaw si xew bi lii du cëram lii cëru APR rek benn bokk yaakaar mais du cëram. <laughs> d'accord euh, très bien Daouda alors boobu. ñu daal di ñëw ci euh, sortie démb euh, bi nga xamante ni ñoom la waa alliance pour la euh, alliance pour la. république Trans non waa APR. oui man dama dem ba fàtte sax. <laughs> APR mi si pour la république <laughs> merci kii di ab Mbow nag daal di nay fësal si seen boobu boobule jotaay kàddu yi nga.